acteur de la pêche yi dañu dajale ci célébrer li ñuy wax journée mondiale de la pêche ci contexte bi nga xamante ni nag dafa am crise boo xam ni moom moo am ci géej gi muy ñàkkum jën moo xam ni ñëpp ñu ngi koy wax mu dem ba laal sax économie dëkk bi ak ci biir société bi yëpp mu am ci ay njeexital ci loolu nag ñun dañu gis ni li ko li ko waral dafa am euh, waxtaan dialogue boo xamante ni dafa ñàkk maanaam ñi nga xam ne ñoo ko séq waxtaan bi dafa des Eh, ci loolu it jur na ba gis nañ loo dafa am lu mu indi mooy mool yi nga xamante ni tey au lieu ñu dem géej pour nappi dañuy dem géej pour jaar ca géej pour dem Espagne muy mbir moo xamante ni tamit sonal nañu trop. ah ci loolu nag organisation professionnelle it ñu daje tëgg coalition bii ñu tuddee coalition nationale pour une pêche durable au Sénégal vision bi tamit mooy ñu ne dañoo bëgg fii ak 2030 Sénégal am napp gu sax dàkk goo xam ni dafay jëriñ askanu Sénégal d'abord. waaye nag ca liggéey ba tënk nañ euh, juróom-ñeenti point yoo xam ni moom lañ def ci mémorandum bi ne dafa urgent moom la ñuy dénk ministre bi pour ñu ànd ak moom liggéey ci lii ndax 2030 mun ñu fekk ñu am napp ko saf dàq fii ci Sénégal ci point yooyu wax nañ ni bépp licence bu bees ñu ngi ñaan ministre bi bu mu ko signalati benn bato pour muy dugg si géej gi beneen bi it wax nañ ni yabooy bi nga xam ne moom la ñuy dunde ak këba bi nañ ko bàyyi ak sénégalais yi nga xamante ni ñoo ñoo yor bato wala ñoo yor ay gaal wala ñoo koy jaayante seen biir beneen bi aussi wax nañ ne ñu ñuy teewal ci organisation yi nga xamante ni ñooy ñooy saytu kuréel yi nga xam ne dañoo mag li yor ci wàllu lissance yeeg wàllu commission bi nga xam ne ñooy saytu bu ñu arraisonné bato ñu yokk fa suñu taxawaay ñu yokk fa taxawaay mool yi bañ man di wax ñu leen di dégg leneen li ci am mooy dafa am waxtaan bu ñu amoon muy recommandation dafa génnoon ci benn waxtaan au temps boobu ministre Aminata Mbengue moo fi nekkoon ñu ne usines yi dañ leen di gelé usine de farine de poisson amati Sénégal loolu aussi ñu ne nañ ko dëggal ci ak këyit ñu ngi xaar loolu nañ ñu ko defal pour man ko mandargaal beneen bi it nañu jël ay mesures yoo xam ni dafay jëm ci aar géej gi aar gàncax gi ba napp gi mën a dellu fi mu nekkoon mool yi bañ a tey jël gaal di dem Espagne waaye ñuy dem géej di nappi leneen li ñu wax aussi mooy que ni il faut sunu diggante ak Union européenne accord bi nga xam ni moo fi am na ko partie sénégalaise bi càmbat parce que dañoo gis ni union européenne ñoom ñoo war a ñooy def évaluation bu ñu defee évaluation pare si résultat yooyu la ñuy basé léegi nag ñun mooy dañu ñaan Sénégal na defal boppam évaluation xool ba xam ndax am na njariñ su fekkee accord bi am na njariñ xayrun su fekkee amul njariñ ñu jël si ay matukaay pour man ko man ko mën ko dakkal beneen bi aussi ñu ne ñi nga xamante ne ñooy saytu géej gi te dañu wax ne géej gi am na jën lii lañ ci mën a napp ak lii lañ ci mënul napp nañ leen dooleel jàppale leen ba nga xamante ni xayma bi dina wóor te bu wóoree résultat ya mu indi buñ ko denc nañ ko vulgariser ba ñëpp jot ci ñu mën a jëlandoo décision ensemble beneen bi aussi ñu ne secteur bi gis nañ ni ko maam bàyyi woon ba léegi ca lañ nekk dañoo war a dem nag euh, mu dañu ko professionnaliser ko ñu mën a xam ñaata moo la fi nekk ñaata marieur ak ñaata euh, femme transformatrice beneen bi aussi le président Macky Sall dafa engagé woon depuis 2016 en Mauritanie ne dafay bokk si lu ñuy wax initiative pour la transparence des pêches ñu koy woowee fiti ak am na yeneen it yu mel ni noonu yooy it dañoo bëgg mandarga bool mu ñu dëggal ko pour euh, napp gi euh, mën a ñoŋ mën a jëm ci kanam. Euh, donc dinaa jël mémorandum bi dinaa ko jox ki ma ko war a jox muy ministre mais li ma jot a dégg jàpp naa ne wutewul ak li ñuy doxal fii si ministère bi parce que li am solo tey nga wax ko. mooy ressource bi tey ñu ngi koy agressé ressource bi mu ngi raar ressource bi tey accords yi jàpp ñu bari jàpp nañu mu ngi ko yàq loolu tax na ba Sénégal tey ñu taxaw lu ñuy wax cogestion tey gérer napp bi nekkatul rek loo xam ne mbiru ministère la ministère dafa ubbeeku ba ñu nga xam ne mu ñooy acteurs yi bokk nañ si tey jii bu ngeen ñëwee si ministère bi daanaka kenn nekku fi ministre yi mu ngi noonu Pikine man maa ngi ñi dem Thiès. donc loolu yëpp nag ngir li nga xam ne moom la ñu bokk muy napp gi kon jot naa ko dinaa ko eggale fi mu war a egg dinañu woote dinañ toog nañu waxtaan nañ trouver solution